soo mën a de ngi leen di nuyu Kër Mboydo. ngi leen di nuyu di leen di ñaan subhanahu wa taala mu suñu bi mi nga xam fi tey dañoo woon comme ni ngeen ko gisee ci teen bi nga xam ne tàmbale woon nañ ko depuis weer wala passé euh, yàlla dogal ni boobu ba léegi mënuñu woon agsi fii te waroon nañoo ñëw pour def lancement bi depuis boobu ba léegi tey la ko yàlla dogal moo tax ñu agsi fii pour def lancement wu teen bi xam naa bu paree ñu ñëwaat pour def bi teen bi nag benn benn famille boo xam ne ay jaamu yàlla lañ ñoo xam ñoom ñoo financé li nga xam mooy teen bi yàlla dogal mu ñëw fii ci kër Mboye Ndo yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul famille boobu seen jubluwaay ci teen bi te en général famille li nga xam moom lañ jublu ci di financé yu mel nii moom mooy jaamu yàlla lañ ci jublu dañ ko def ngir yàlla fay lañ ci tuyaaba ndax ngeen ndox dafa nekk lu sacré nekk lu am solo ci dundu doomu aadama doomu aadama mënu koo ñàkk kon ki xam ne loolu doomu aadama mënu ko ñàkk mu jël alalam ci teyu bakkanam defal ko ay nit ngir dimbale leen ci ñàkk ndox kon kooku mi ngi ci jaamu yàlla bu rëy kon yal yàlla nangul ko jaamu googee maanaam famille boobu yal na yàlla nangul leen lii ñu def yal na yàlla wuutalal leen li nga xam ne dugal nañ ko ci. lii ngeen ñu indil yàgg nañ ko soxla te mënuñ ko am benn teen bii rek lañ fi yore léegi indil ngeen ñu ko sant nañ yàlla sant nañ leen waaw léegi loolu moom kontaanle parce que ndox mooy lépp ni da ngay dégg mu feebar bàyyi lekk waaye bés bu mu bàyyi naan rek dafay dee. ñi ñi ñi ko def yalla na leen may mu may leen wér kontaan nañ ci yéen parce que foo gis li am yéen bu ngeen fa téyoon xaalis bi ñun duñ ko xam waaye yéen xag si ngeen ci naaj bu tàng mi mu jaral leen ngeen dox ngeen ñëw ak dëgg yàlla yéen it ngeen loolu bu passé am na leneen nag lu ñu bugg loolu loolu moom gis ngeen ko waaw yee ni ngi nii janox moom xam nga bii bu julli jotee duñ fi mën a xeeñ ñu ngi rafetaay seen ñëw fii ñu ngi leen ci réussir ndax li ngeen def dañ ñu koo yàggoon a bëgg léegi nag defuñu ci leneen lu dul rafetal li ngeen fi indi ndax ñàkkum ndox mi xawoon na fii am mel na ni léegi mu fii bugg a jóge ñu ngi jaa jëfal borom projet bi ko indi fii diko ko jaajëfal ñaanal guddu fan ak wér ak wérle ndax ndox mom ku la ko indil dafa bugu sa jaamu yalla gën a yokku ndax ndox boo ko ñàkkee rek ñàkk jaamu yàlla. Donc, bienvenue dans le village de Keur Mboydo un village euh, qui est dans la région de Kaolack On est, alhamdoulillah ici euh, arrivé euh, vers l'après-midi. mais malgré la chaleur euh, accablante, les populations sont venues en masse pour nous accueillir. Donc, on est Alhamdulillah ici pour procéder au lancement du puits euh, qui est dénommé puits Caïs. Donc, le puits qui a été financé par la famille de Kariou et réalisé par Sakuyo Action pour l'Espoir. On est venu pour faire le lancement, mais Alhamdulillah, on a, sur le terrain, on s'est rendu compte même que les travaux sont presque achevés, on a atteint la nappe et qu'Allah nous a accordé une eau qui est très abondante, mais aussi une eau qui est douce, donc pour pouvoir subvenir aux besoins en eau de toute la, de toute la population. Le puits a été financé depuis le mois de Ramadan. Maintenant, euh, donc on est venu aujourd'hui pour, pour, faire le lancement. On est dans une zone où les habitants pratiquent l'élevage. Donc il y a beaucoup de vaches, de, moutons. Donc même au-delà des personnes, ces animaux-là ont besoin de cette eau. Donc plus Allah vous rétribuer de la meilleure des façons. Salam alaikum wa rahmatullah.